Euh, ñi ñi lu bokk na ci anam bi ñuy defee pesager ak itam taxi yi ñuy teg euh, ci charge à l'essieu yi ñuy imposé kon camion frigorifique yi boobu les grève mu mel ni lu ci ëpp ci Sénégal wërngal këpp daal nañu koy euh, amal fële ca Mbour itam ca quai de pêche ba fa nekk ni ki tey ci suba camion frigorifique yi dañu ko fa gaare ñu kon respecté boobule mot d'ordre de grève feneen foo xamante ne itam grève ñetti fan boobule dëkk ñu ngi koy def moo di marché central jaaye jën nekk ca diwaanu Kaolack foofee ña fay yëngu kon dakkal nañu seen i ay activité foofee ca Kaolack may rayéer yi itam leneen lu ñuy ñaawlu bokk na ci anam bi ñuy amalee recrutement yi tukkee ci directeur yi fa jot a jaar yépp ñuy euh, ñaawlu itam ñàkk set am ak itam ñàkkub kaaronge gi bu ñu sukkandikoo ci Fara Diassé ci reportage am ay tabal yu ñu tegalee fu nekk ci biir loolu yi la ñu seetlu ci marché central au poisson bu Kaolack file bu mareyeur yi nga xamante ne daal nañ ko tàmbali gën na fee fees. ci Kaolack ñoo d'accord ci garab bi ndax ñun ay acteur lañ dépp doo gis loo xam ne neexuñu ci liggéey bi ñu téye suñu loxo. niki seen yeneen i nawle yi ci biir réew mi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu uh, njaayum jën di ñaawlu rek dogal bi nguur gi la jël ngir jaarale mboole mi camion frigorifique yi ci pesage à l'essieu. soo gisee mu seeri nii pompe parce que yee ko a seeral oto ba sarse 2 millions ñu foofa 300000 teg si ko soo waroon jaay 28000 kër gi nga jaay kër gi su boobaa mu métti si askan wi. beneen i jafe-jafe nga xamante ne nag daal nañ ko yëkkati ci bile grève mu di seenug nekkin ci biir marché central au poisson bu Kaolack Magaye Ndiaye. ñaari kàmba yi nii ci gannaaw oto yaa ngi ciy yàqu te nit mën na cee dee marché bi liñ ko teg ëpp na doole ki fi mujj ñëw li mu fi embauché ñi kenn xamul ni mu toll électeur bu bu ñu indi mu indi say mbokk indi say xarit nga doon taxawaal sa koñ bépp nga indi leen ak lum ci monti doon yi la ñetti fanu grève yi nga xamante ne mareyeur yi daal nañ ko tàmbali nit ki tey fas yéene naa jurali jafe-jafe ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum njaayum jën waaye tamit askan wi nga xamante ne ñoom ñoo koy jëfandikoo ñu des ci wàll wi jóge Kaolack ñëw ci banlieue bu Ndakaaru euh, ca diwaanu pikin foofee association nationale bi ëmb mareyeurs Sénégal yi ñoom dañoo jël dogal ni duñu topp boobulee grève li wundu li ñu mel bu ñu sukkandikoo ci seen ay kàddu euh, moo ci waxtaan bi mu ngi woy ak kilifa yu ngànk mbir mi dem sax bay euh, jël ay tuuma teg ko ci ndodd yi ñiy def grève bi xam le ni ay politiciens képp lañu ñu déglu ci Thierno Mbengue moom mooy njiitu association nationale bu mareyeurs Sénégal yi mu ngi ci micro Younoussa Baldé leeral rek sénégalais yi ci coow li nga xam dafa am ci wàllu damay gerew du ma gerew ji ñi war di yàqu sama da dama leen di baax suñu borom parce que affaire pont parce que lii ñuy wax man Thierno Mbengue mii la gën a naqari dox naa ji guddi dox ci bëccëg pour que état bi dindi ko état rencontré nañu ak moom ñaari yoon mais bi ñu rencontré ak ñaari yoon solution génn na parce que pont acier yi ñaari acier yi bàyyil nañ ñu ko yokkal nañ ñu 5 tonnes kon nag yaakaar naa bu waxtaan wi jàpp naa ni daañu war a a bàyyi pont bascule yi mais comme waxtaan mi ngi doon dem ca ca jeexagul dama bëggoon man ñu jeexal waxtaan mi li ma bëgg a wax nag mooy secteur de la pêche dafa yaatu ku yaakaar ne secteur bi yaa moom xëy na ngay xëy nit ñi banque leen seen loxo nax nga sa bopp secteur bi ñëpp ñoo ko bokk pour leeral nit que ni dañu xëy liggéey dañu xëy travailler fii ci marché central au poisson waaye dañu xëy travailler ci yeneen marché yëpp ñu wax ci leneen compagnie d'exploitation bu oléagineux yi jël na dogal ñi dafay tàggatoo ak ay saisonniers wam kon COPEOL daal di leen di jébbal ab préavis buy firndeel ni seen ay contrat dafay jeex fanweeri fan ak benn bu weerub janvier muy lu tolloog juróomi téeméeri liggéeykat yu nar a kon subir conséquences yi tukkee ci campagne bu bon bi ñeel njaay ak njëndum gerte bi waaye ñoom li ñu xamle mooy di li ni mel bettu leen bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Samba moom mooy secrétaire général bu section section bu syndicat bu corps gras bu Kaolack euh, mu ngi ci micro Fara Diassé li tax ñu daje tey mooy ñu yàgg wax yuuxu ko fu ne jooytu ko fu ne ne situation campagne bi suñ ko seetaanee nit ñi dinañ perdre seen liggéey loolu nag moo xew tey saisonniers yi koppawal yëpp tey jot nañ préavis wan ne le 31 janvier dañu dem toog seen kër yi donc liggéey bi arrêté na parce que usine bi nee na amul gerte bu mu liggéey donc dafay tëj juróomi téeméeri nit dinañ dem toog seen kër yi donc ak lu ko ëpp parce que COPEOL dafa utiliser ay travailleurs permanents di utiliser ay saisonniers mais di utiliser aussi ay sous-traitants restaurant yi ko wër ak yëpp ñoom ñëpp dinañ gis impact bi te jaaxle nañ wan ne situation bi fi ñu ko yaakaaroon romb na ko coow li yëpp mooy gerte moo amul responsabilité première bi état bi la ci prévision yi ñu def yu baaxul ak suñuy direction nañ waxante dëgg suñuy direction aussi defuñu benn effort pour concurrencer seen yeneen waa DSCOS ñu ngiy wéyal seeni ay opération di toj ay bâtiment yu ñu tabax ci anam yu dëppawul ak yoon ni ki tey ci suba lieutenant colonel Papa Sabouri Ndiaye ak ñamu àndaloon ñu nga woon ca VDN bi jublu ci ay kër yu ngarale ba ci domaine public bi dañu déglu ci explication yu lieutenant colonel Papa Sabouri Ndiaye kon ci euh, micro Nonko Bakayoko seetlu nañ ne euh, pratiquement VDN bi dañ ko occupé. li gën a mooy. da ngay gis koo xamante ni dafa am këram tabax ko bi mu normal mu ji mu jëw jël tibb 20 ci kaw VDN bi clôturer ko am na sañu xamante ni kam dañu clôturer def ko commerce di ko louer te lu te dañu lancé opération boobu pour ku nekk yem fi nga xamante ne moom nga am droit occupé bàyyi li nga xamante ne ñëpp a ko bokk boo jëlee particulièrement le cas euh, de Yëngu Leen kooku je pense que depuis 2016 lañ ko sommé woon ba muy doog a commencé mais mësta arrêté mësta arrêté dem na sax bi ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wet gi sax ku ci nekk yaa ngi puus di di dandan moom di aligné parce que yaakaar nañ ne xëy na lam def mooy yoon duñ soxla sax suivi parce que ki nga xamante ne moo def baaram def ci 10 millions de construction ñu arrêté ko mu bañ buñ ko tojee yaakaar nañ dootu fa defaat xaalis bu fekkente ne euh, li muy liggéey lew na ko ba ñu ca noppee njàkkare ak tiis lañu bàyyee ña moomoon yooyu les bâtiment ñu toj bokk na ci ki moom yëngu leen di ci jan ñan ñu déglu ay kàddoom waa des ko si waxoon nañu dinañ ñëw mais bi ñu koy wax fekk ni yëf yi dafa yéex daal fekk ni man booba maire bi jox na ma ba ma defar ba pare alors ba maire bi joxee ma defar dugal sama kayitu impôt ay domaine mu ngi nekkoon si yoon bi pour génn bon fekk ñu ñëw ñoom tamit génne seen règlement bi comme Sénégal bu ma honorewul man Allemagne yi honoré nañ ma Sénégal xam nañ may kan sant yàlla rek aw ma si dara lu may jooy wala dara sant yàlla alhamdulilah. waaw koppar moom li mu kii nag bëri na bëri na waaye comme que yàlla moom ma ko jox te su ma mu ñëw mu joxaat ma lépp lii kon damay sant rek. ñu wax ci wàllub yoon ñeel procès en appel bu euh, Barthélémy Diaz ci affaire Ndiaga juuf bi ñu namoon euh, amal ni ki tey ci suba euh, dàkkati nañu ko bi yoon ba fukkeelu fa ak ñett bu weerub mai maire bu Mermoz Sacré-Cœur di fàttali nekkoon de yoon dafa jëloon dogal daan ko ci weerub février bu atum 2017 ñaari at yu ñaari atu kasu yoo xam ne juróom benn weer yi képp la ci tëdd parquet bi xamle woon ni li ni mel dafa tuuti ba tax na mu interjeté rejeté woon appel dinañu ci ñëw xëy na ci anam bu gën a yaatu ci suñu yeneen édition waaye wax ci leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi euh, FASTEF euh, di faculté sciences et technique bu éducation ak formation euh, deful benn cours ni ki tey ci suba jàngalekat yi nekk ci section SAES e ñoo comme amal ab débrayage ni ki tey di xamle ni ñoom forme nañu lu tolloo ko juróom-ñeenti téeméeri jàngalekat contractuel ak vacataire ginnaaw bi ko jëwrin bi yore wàll wi sàkkoo kenn joxu leen seen i ay payoor li wundu li ni mel bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu ñu joxoñ baaraamu ba tey jëwrin bi moo di amul woon benn budget bu ñu uh, jëloon jagleel ko uh, mbir mi ba tax na ñu koy ñaawlu bu baax a baax di xam ne ni li ni mel avertissement képp la ñu déglu ci compte rendu bu ci Tidiane Diallo ñàkk respecté engagement yi loolu moo waral jàngalekat yi nekk ci école normale dañoo suspendre cours yi ngir ñaawlu doxalin kilifa yi. que jàngale nañ benn at formé nañ ay enseignants. boo xam ne ministre de l'enseignement de l'éducation nationale moo ko laajoon ñëw dolli ko suñu liggéey bu mu ko dollee suñu liggéey dafa am lu mu war a teg suñu loxo loxo ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi yëngatu si liggéey boobu ba léegi defuñ ko ñun gis nañ ak waxtaan ak suñu doyen amu si xalaat si mbiru koppar boobu coordination de Dakar waxtaan ak rectorat amul si xalaat. le bureau national SAES bureau national SAES waxtaan nag rek euh, ministère d' enseignement supérieur mu koy promettre mais ñun tey dañoo bëgg wax ne kontaanuñu. ñoom nag ñu ngi xaar kilifa yi ñu saafara seen jafe-jafe yi laataa ñuy entamer seen plan d' action. suñu plan d' dañ koy tënk si ne buñ yëngatoo éducation mu na yëngatu yëngatu ba ñëpp yëg ko parce que ñun xeex bu ñuy xeex. enseignants yépp lu concerné moyen secondaire même élémentaire. jàngalekat yi ñoom ñu ngi xaar jëwriñ bi yor wàllum enseignement supérieur saafara seen jafe-jafe yi ngir ñu mën a wéyal seen liggéey. yegg si nañu ci cappaandaw gi mu di li gëna a fës ci kayitu yëglekaay yi ñu di ci ak El Hadji Ahmed Aïdara métti na lool màggat mu feebar la dee foo laal day métti le quotidien yéene kaay ne wàllu njàng meeg njàngale mi ne day ak wàllu wér gëram ba ca wàllu napp ga laa la wax waaw dama ne la feebar yëngu fi mu nekk ni la tension totale yéene kaay ma jambal jàngi ne dama ne gis nga weeru janvier day waaw wàllu njàng mi la ah, ah, wax damboo ci sem waaw nee na ni ki démb nga xam ne moom la ñoo doon day tex nañ sa slëf waaw la na ca maanaam kayit ya lenteur administrative ya la ba way benn ñaar dama ne la nguur gi tey ji la yoreel na lu tolloo téeméeri milliards jàngalekat ya la ilaha illallah ko wax bu ñu laajee ñu naan ña ngay xaalis ña ngay xaalis waaw daambooj ne la ñuy naqarlu mooy sàcc gi nga xam ne kon maanaam ñu ngi koy organiser na ci direction des soldes loolu waaye itam affectation ñu ngi koy def nag jàngalekat yi lée loolu tamit moomee ah kuréel gi nga xam ne moo njabootam laa ilaaha illallaah la ñuy naqarlu day ah mooy bascule ba foofee nga xam ne la ñuy peesee ko camion yi day frigo yi waaw te marché central au poisson peese ba daa seer Thierno Mbengue waaw ne dama ne la peese bi daa seer parce que nag lañ doon peesee yi day ak léegi ni le ah comme yàlla ak yàlla waaye madame Kiné Ndoye ah nee na ma day jërëw ba d'accord uma ca yéeni kaay gi ne waa SAMES tamit day wàcc ca mbedd ma ca diwaanu Kolda maa la ko wax xëj na bu pétrole bi ñëwee mu dee alhamdulilah daal dinañ koy lancé léegi ñu day moo def na kon lancement ba moom ministre pétrole waaw daal dinay woon ak secteur privé taxaw takku ni naana mbéte ummi géey 24 heures yéene kaay Frank Timis fa day waaw Mamadou Lamine Diallo daal muy naqarlu ah mooy pataaral gi nga xam maanaam moo am kon ca tribunal tribunal ba seen kuréel gii di CRD ñoom Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ak Thierno Alassane Sall waaw dañoo porté woon plainte na coowal Petro-Tim joojee waaye boobu ba léegi ne la day du waa Benno Bokk Yaakaar dañ ne pas du doyen des juges dañ ne pas Mamadou Lamine Diallo ne te gouvernement wu Sénégal bi ci boppam day ginnaaw nag enquête bi nga kon maanaam waa BBC defoon nañ ko fi waaw mais nangu woon nañ ne na ci ay laa la wax téeméer ak fanweer ci ay milliards xam ne kon dañu koo joxe ca teenu pétrole ba ca ndar waaw Mamadou Lamine Diallo ne ko yéene kaay ne en njigal ki talis yi fournisseurs wax nañu dëgg gi de leer na de parce que nee nañu ab ki mënta jar mukk junni ak juróom benn téeméer huit francs mënta ne xanaa roño gi nga xam ne kon defaraat sax di rein artificiel bi waaw moo gën seer foofu nag laa la wax ay lay la ndaxte nee na li ko gouvernement bi di amee nii fukki junne ñett waaye tey ji lee diggante 37000 ak 39000 matul sax juróom-ñetti junni waaw ñoom fournisseur yooyee waaw nee nañu dem leen dëkk yi nga xam ne kon ñoo wër ni lée nekk suñuy dëkkandoo gis nga ki kooble bi waaw fa gën a seere fuuf laa la wax ma nga ca diggante 42500 ak 100000 francs ñaar fukki junni maa la ko wax hors investissement ak maintenance waa grand passe en tout cas Famara xam ne kon war nañ tas leen ma man soxlaw ma budget sabab day mooy ñeen fukk bees ñi xam ne dañ leen dañ leen leen cay dugal quarante nouveaux membres ya les ko yéene kaay dama ne la gars yi jubawuñ ci dara mbir ma soppee ko sabar ko tas ñaaw xuloo jàppal bàyyil jëmel ni dul lay man nga nguur gi day dañoo bëggoon a piéger opposition bi opposition bi njuulee Ibrahima Sagna nag bañ ko làmb